ñii di waa majorité présidentielle kuje gi ak ni mu dayoo société civile bi ak bépp doomu réew mi ak sax ñi yeewoo ca bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi xaaral xaarandi njiitu réew mi jël ab dogal ci ki nga xam ne nar na ko tàbb mu doon candidat coalition bi di benn Bokk Yaakaar ci présidentielle février 2024 yu ñu dëgmal loole nag mosul am ci taarix politique bu réewu Sénégal ab njiitu réew bi nga xam ne moom mooy tànnal boppam ki ko nar a wutu ci nguur gi président Macky Sall nag ki mu nar a tànn dana ko saytu bu baax a baax te itam dina bokk ci critères yi ab kóolute bu mat sëkk bu dox digganteem ak candidat boobee dana ko xam ci biir ak ci biti dana doon itam nit koo xam ne fréquenté na président de la république laata muy doon njiitu réew te itam mu wéy di ko soutenir diggante 2012 ki nga xam ne nar na ko tànn xaritam lay doon te itam candidat la boo xam ne déggoon nañ bu baax te itam ñu joxante cër bu mat sëkk tànneef bi nag président de la république lim ciy jublu mooy mooy jouer mu jëntalu carte politique am laata muy jóge ci nguur gi niki le 2 avril 2024 bi ñu dëgmal ba tax na faw mu am ay garantie yu wóor ki nga xam ne nar na ko wutu faw rek mu nangoo doxal programme bi nga xam ne njiitu réew mi dana ko ko jox orientation yi ak lépp itam li nga xam ne war na ko dëgëral ci programme yi mu jot a amal bokk na ci critères yitam itam candidat bi nangoo doxal kóllëre bi dox digganteem ak njiitu réew mi ci lépp lu jëm ci wàllum transition du pouvoir loole nag day wane ne ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi moom mooy fexe ba candidat bi nga xam ne tàbb na ko ñëpp nangu ko topp mu doon parti bi coalition bi njiitu diine yi ak ak itam partenaire technique yi loole day tekki ne njiitu réew mi moom moo nar a doon directeur u campagne candidat bi nga xam ne nar na ko tàbb ci présidentielle yi ñu dëgmal candidat boobee am lu jafe loo xam ne mën na ko yóbbu mu doon juróomeelu njiitu réew bu Sénégal.